seeni activité moo ngay wéy di continuer ndaw ñi ànd ak ministre bu fonction publique di meeru Mbàkke di Galo Ba ñoom ndaw ñooñu nag ginnaaw bi ñu amalee taxawaay bu am solo ci biir dëkk bii di Mbàkke Bool samedi ji nag dañoo dem ca stade municipal bu Mbàkke Bool di stade bi ñu duppee El Hadj Ibrahima Gueye nekkoon fi maire organisé fa journée de reboisement di bis boo xamante ne bi dañ fay jëmbat ay garab ñoom ndaw ñooñu nag décoré nañ tribune nga xamante ne bi moom moo nekk ci boobule stade ginnaaw gi nag kilifa gi nga xamante ne bi nag ñëw na moom mi la doon wan nit ñi jëmbate garab yi nag jël na fa kàddu ñu déglu ko ci 2027. reboisement yoo xam ne da ngay jëmbat ay junniy garab te dara taxawu ci wax dëgg yàlla def ñaari garab mu taxaw moo gën a efficace gën a am njariñ wax dëgg yàlla ñi ngi euh, encouragé bu baax jeunes yi ci seen taxawaay boobu ci activité yu mel nii ci loo xam ne day jariñ collectivité bi day jariñ nit ñi rawat nañ nag loo xam day defar environnement bi ndax seen dëkk la ab tubaab du jóge ci asamaan si ñëw di ko defaral ab naar ci nous ji di ko nous nit nag fi bërëb la nga xam da ko soxlawoo nous koy defal sa nous rawat nañ nak lu melni lu melni ak nous lu melni <laughs> mbay moy lek ya ci war taxawal sa bop kon ni ñu mobiliser jeunes yi ci par rapport ak garab mi Nous, la mobiliser par rapport à des travaux liggéey yu concret ñu ci ay formation pour ñu mëna dimbali seen seen gox ndax gox bo gis likoy nous moy compétence

damaa commencé comme ñëpp xam naa nii ma xàmmee woon naa ma il y a 10 ans 15 ans xàmmee woon naa benn mango plus ou moins waaye damaa ñëw fi sur le terrain xam ne bi ma ñëwee li ma programmé woon lépp lire ko ci ay livre nangam nang lépp di échoué di échoué di échoué xam li ma indaale ci xaalis bi sama liggéey président dama lépp yàqu ma yàlla nag ci baaxam yërmaane moy def soo nekkee ci mbir su yàggee mu dimbali ci war la ci aw yoon garab yi ñu fi def tey jii peltiforme le principalement ak ak ak mentaliste garab nak day garab bërëb bu ne dafa am lu fa nangu

Euh, Melina da fay am difficulté day gaaw a rap mentali euh, kii euh, Mélina Albécia day rëy trop trop trop en zone urbaine ñaar yi nak ils sont gérables et maîtrisables wax deug yalla motax tax mu jàpp ne c'est de bonnes options parce que meuna tol no noo bëgg soo koy mu yam ni nga bëgg soo ko mu soo am nekk ponkalum garab bu ci dem meuna mag 10 mètres alentour donc 5 rek 5 côté bi donc vraiment garab yo xamni non seulement lolu ensuite des garab yo xamni ne suñu xasee taxaw liggéey bi amatul solo ci yow tayé ngay def une fois tous les x temps

il vaut mieux su suñu nawet bi jàllee nii ñu continuer ko ñu ko rosé au moins une à deux fois par semaine normalement une fois par semaine mais comme ab zone zone isolée la dara ko une à deux fois par semaine voire trois ça suffira largement tous les deux jours ñu roose ko bàyyi ko su nawet bi ñëwaatee moom noppi ngeen ci. ginnaaw kilifa googu nag ndaw ñi ànd ak maire bii di Gallo Ba nag jël nañ fa cadeau xanaa kàddu ñaax lay lay doon rek ndax comme yàlla day dogal ñu ànd ak ministre. action yu mel nii dafay baax léeg-léeg ñu koy def ngir jàppale ko ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéey ci euh, dëkk bi kon loolu dañ ciy soññiwaat seen yi ànd ak moom soññ si yeneen seeni aussi ñi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi parce que lii euh, citoyenneté mënu koo romb kon loolu du question seen yi ànd moom kese mais képp ku ne ci dëkk bi rek bis war na jot nga def activité yu mel nii jëmbat garab wala nga def euh, set setal wala yu mel nii xeet yu mel nii daal dafa baax ci dëkk baax na ci jàppale sa nit mais baax na ci aussi ci ab dëkk vraiment ndax ndax yéen ngi nasaat waaw yaakaar naa bu journée bi jeexee am na yeneen journée yoo xam ne mi ngi ci sunu kanam yoo xam ne programme nañ ko xañ na diggante fii ak xat na ba doo fi mën a defaat yeneen journée yu bari mais bu doon benn journée rek dinañ ko defaat euh, mais bu màggal gi jàll action yu mel nii dañ koy continuer parce que garab yi des na am na yeneen action aussi yoo xam ne fii ak école di tijji euh, fas yéene nañ koo def jàppale ko monsieur le ci dëkk ci euh, liggéey bi nga xam ne war na ko liggéey tu Mbàkke lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màgge te lii ñuy def nii don de soi la don de soi la li jaamu yàlla la jëmbat garab boo ko fi bàyyee képp ku ci kerlu bu soobee yàlla te yaa bayee dalay fekk ba fa nga nekk aussi lépp nag dañ ko koy delloowaat parce que moo ñu woon yoon bi ñuy teg suñu tànk parce que moom référence la si ñun fierté la si ñun aussi muy loo xam ne lu ñu war la wàccu ñu kon boog lu la war wàccu la affaire nag yemul fii dañuy reboiser stade bi bu ñu fa jugee bu ñu fa jugee fii dem incha allah ci euh, garage bu bees bi bi ñuy waaje a inauguré suba incha allah ci dimanche ji ak reboiser fépp foo xamante ne ministre monsieur le ministre defar na ko ñu ñëw taaral ko ba pare nag di yem foofu day ànd ak suivi on va se constituer en groupe ñoo xamante ne ñoo fiy jaar parfois di arroser fii di arroser fépp foo xamante ne dëmbal nañ fa garab di yem ci garab dong aussi nawet bi ren metti na boo xoolee Mbàkke bëri na foofu foo xamante ni taana mais saa yu taawee rek ñu jaayaat fa nga caat ndox mi am na ci yoo xam ne heureusement voies yi nga xam ne ay ay voies publiques lañ oto yi dafa jaar si màggal gi instant yi nañ ko réfectionné boo dee xool route nationale route nationale bi nga xam ne dafa jógee Elton jëm ba Touba commencé nañ ko réfectionné xaaj bi yëpp jàll na xam na incha allah tey jii dinañ commencé bi jógee station Shell ba jëm gaar ba bu neexee yàlla suñ. parce que liñ yàgg a rêvé ay ati ati at defe naa ni ñun fii lañ juddoo lii ñoo ngi koy door am kon defe naa ni li nga xam ni moom lañ bëggoon maire Gallo Ba jox nañu ko. nga nekk président ASC yan kàddu nga yëkkati ñaax sa mbokki sportif yi ku am stade bu mel nii yàq waru waaw li may wax sama mbokki ASC yëpp muy ASC yi nga xam ñi ngi ci département bi yëpp euh, dileen wax ne luñ musul am. suñ ko amee dañ koy fonk olof day wax ni benn bëñ dafa fara fonk te weex te yàlla dogal na ñun amuñ lu dul lii yàgg nañ ko bëgg tey la ko suñu borom dogal mu jaar ci loxoy maire Gallo Ba mu defal ñu ko kon nag buñ ko yàq ci lu ñàkk fayda dañuy wax ni foo gis kuy xuloo ko xeex sport ñoru ko sport day boole mais du tàqale munoo taqale koo nga xam ni ASC mbooloo mi la dëkk ak ASC Bawol parce ñoo bokk benn couleur da nga ni ASC mbooloo mi ne ASC Bawol kon benn lañ kon nañuy wax violence bi soxla wuñ ko ci stade bi soxla wuñ ko feneen sax fudut ci stade bi parce que jàmm mooy àdduna sëñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu day wax ni nit ki euh, li war a njëkk si moom mooy na am jàmm ndax boo amul jàmm doo a def dara kon nañuy am jàmm di yéenante lu baax euh, li nga xam ni moom lañ moom muy stade bi nañ ko fonk

te ministre maire Gallo Ba am na ko parce que dañoo manko góor ak jigéen ñu dañ koy jàppale si Mbàkke parce que euh, mairie du benn nit moo koy defar mbooloo ñoo koy defar moo tax ñu ñëpp ñu boole suñu doole nekk si ginnaaw ministre maire Gallo Ba fas yéene lii nag si lañ commencé mais activités yi day continuer même après màggal dañ koy defaat parce que nag développement lii rek la politique de développement la ñu wax kon nii lañ mën a jàppalee suñu kilifa wan ko ne ko nag tànk boo teg boo tegee ñu teg suñu tànk parce que nag mooy suñu royukaay mooy suñu idole mooy suñu lépp mat nañu lépp nag moo tax fu mu teg tànkam bu teggee ñu teg suñu tànk fas yéene koo jàppale si Mbàkke Bawol waaw dañoo gis ne stade dafa nekk milieu boo xam ne buñ siy fubal day tàng jër mais une fois nga def euh, garab bi gars yi moment ñiy ñëw te mënuñu yëg turbine si garab bi la ñuy taxaw mën a seetaan te li ñuy wax chaque jour rek un environnement sain dans un corps sain loolu moo waral ñu gën a am initiative dañ koy def au niveau de stade de Mbàkke pour wan ne rek bi tamit am na njëriñ ñu fexe ba ñun waa Mbàkke xam ne ñu ñoo ko moom ñun ñu defar ak ñu defar yëpp benn lañ kenn képp koo xam ne mën nga ñëw topp ñu ñu bokk suivi bi ñu gën a ñu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk suñu Mbàkke te développement Mbàkke du kenn du ñun ñëpp ñooy naw Fama Mbeng nga xam ne moom moo di Mbaye am taxawaay bu rafet lool ci bir commune bi du Mbàkke bol moom it jël na fa kàddu moom Mbaye Babacar Sy moomu sax bokk na ci ñi jàppal tànk maire bu Mbàkke bol di ministre bu fonction publique ñu déglu Mbaye Babacar Sy si micro Sen 7 barkaat démb ñu ngi ci ndox mi di pompe ay ay tali si ndigalu monsieur le ministre maire Gallo Ba tey nag ñu ngi ci stade Mbàkke bi nga xamante ne waa Mbàkke nañ ci daw lopp fukki at ak djuroom tay nak mu ag ci dayo bi mu ag grâce au ministre maire galoba ñu ne lan mo tax duñu fi def activité phare ci lañ xalaat ak ay experts ñu ne pourquoi pas reboiser le stade de Mbacké ci la ñu ñëw dajale lu ñu am ñun ñëpp suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm namu toll lepp ñu jël ko jënd ko ay garab mais aussi ànd ko ab ingénieur muy sëtu Serigne Touba nek ingénieur moo ñu jaay garab yi ba paré ñeu accompagner ñu ci

du lu ñuy yàq du lu ñuy xeexee du lu ñuy xuloowee tey ñun ñoo ko war a sàmm kon tey bu ñu fi njëkkee njëkk a def activité bi jiitu muy reboiser may leen ker muy décorer tribune bi nga xamante ni tey président de la république bu fi ñëwoon tey day am mbégte ndax tribune bi répondre na norme yëpp kon bu ñu ko defee lii nii day doon ab ab maanaam ab soññe la pour yeneen ndaw ji pour ñu xam ne stade bii li ci monsieur le ministre daj ak ndaw yi dëkk bi ba ñu am ko duñu ko seetaan kenn du ko yàq moo waral tey ñu investir fii lii nga xamante ne mooy investissement boo xamante ne bu am solo la pour gën a am taxawaay gën a dëgëral tamit taxawaay monsieur le ministre maire. parce que tamit infrastructure yi ñu mel su ko ab kilifa fexe ba mu am ci dëkk ba bay yemb ndaw ñi dañoo war am taxawaay ci loola. taxawaay boobu nag moo waral ndaw ñi am taxawaayu reboiser stade bi décorer tribune bi waaye tamit am taxawaayu vigilance parce que nag boo defee lépp lu la war. li ci dess nak moy vigilance vigilance nak buñ ko waxé nak moy ci estade bi directeur estade bi kan la koy denk yan mbir lañuy tek pour estade bi gëna sam gi gëna taxaw. parce que tamit loolu lepp da am solo parce que nak li ci ministre dégg lepp daj ko ci dem ba ministre des sports premier ministre nak heure buñ dajé ci tunnel yi manam buñ dajé conseil des ministres doo wax dara lu estade Mbacké tëli Mbacké nangam kon nak du sétane moy de 1 mois ay nit. vandalisme bi ñu am ci réew mi ci yenn ndaw yi di am fii ci Mbàkke Bawol hmm. loolu nag li ñu koy may mooy taxawaay li ministre wax ki ñuy jox stade bi na am taxawaay bu amul taxawaay du fi def sa ñaari fan parce que nag lépp loo gis ci am réew taxawaay moo koy maye hmm. tey Sénégal bu demee bañ naan TER naan BRT naan nangam taxawaay moo ko maye taxawaay nag mooy sécurisation tey li ñu def di reboiser stade bi sécuriser stade bi loolu moo ci jiitu ku ñëw am foo taxaw am ker ku ñëw foo am foo toog am atmosphère bu baax waaye tamit ki nga xamante ni dañu koy dénk stade bi na am taxawaay ci stade bi surtout loolu nag. état d'avancement stade bi ban gis-gis ngeen ci am bi it euh, ban gis-gis wala ban wala ban gis-gis ngeen am ci taxawaay bi muy taxawu Mbacke. waaw état d'avancement bi dañuy sant yàlla parce que sëñ Mamoun Mbacke président daar daar gi mën na ma seede avant ministre bi di jël dëkk bi muy lii nga gis stade bi yëpp àggu fi woon maanaam lépp dañ koo jëloon tëj ko ci magasin lu mat ñaari at. kon buñu démé ba stade bi agsi fi dañ ko koy santé diko gërëmé ak taxwayam la kon nak état d'avancement bi dafa am solo ndax tay stade bi mënuñu wax ne complexe sportif la parce que terrain basketball baa ngi nii à gauche à droite terrain handball baa ngi nële piste athlétisme baa ngi nële maanaam ñëpp mën ci jariñu état d'avancement bi nak luñuy rafetlu la waaye aussi di inciter aussi la municipalité ñu gëna a veiller sur l'éclairage public de l'estade surtout alentour estade bi parce que tamit nous nous de telle sorte que nous tous les moyens qu'il faut amu sécurisation aussi dafa am solo muy ñu ba éclairage public bi gën fi accès accès na ci mais porte centrale bi tamit nañu am patience surtout monsieur le ministre Ce daj ba Mbàkke am lii na ci en sécurité parce que nous avons pare na nous nañu xool tous les normes yi sécuriser stade bi alentour bi tamit dafa am solo parce que tamit ci la lépp di xewee defkatu ñaawteef yi bu ñu ñëwee ci biir nekkuñu à l'aise pour def lu bon dañuy xaar nit ñu ci biti bu leen xaaree ci biti mën nañu indi yeneen incident te ñaanuñu ko yàlla te xam nañ aussi kilifa gi ñu àndal xam nañu ne du négliger dara ku dem jam ñaajo gële di seetaan équipe nationale xam nga ne négligé wul dara loolu nag lañu koy gën a joññee di ko gën a wax ni taxawaay bi sant nañ ko bu baax gërëm nañu ko ci li mu ci def lépp mais état d' avancement stade bi ñu koy rafetlu di encourager aussi l' entrepreneur parce que tey permettre nañu ñu mën fi def suñu activité su ko neexoon mu bañ parce que livré gu ko mais moom tamit li mu wax mooy engagement bi ngeen am defar naa stade Sénégal fu ne mais mosuma gis ay ndaw yu am engagement boobu ñu ne ko suñu kilifa moo am taxawaay moo tax ñu am taxawaay bii su meloon neneen ña ñeneen ña mel ci yeneen dëkk ya kon lii du am kon loolu moo waral yàlla yàlla lafal ñu cat nous leen remercier aussi bu baax di remercier nag la jeunesse féminine du ma wax góor parce que góor ñi ñu ngi ci li mi mais jigéen ñi nga xamante ne tey dañoo engagé wu tey boudé dee garab yi quatre-vingt-dix la mën nañu jàpp ne quatre-vingts yëpp ñoom jëmbat ak engagement bi ñu am kon ñu leen wax ne rek ngeen gën a am taxawaay tey yaay yi ministre tey yéen war nañu jël sax référence yi yéen taxawaay bi ngeen am ba pare li si ëpp solo mooy sont des intellectuels étudiants yaa ngi fi ñëpp a ngi fi mais aussi monde informel bi ñëpp a ngi fi li si ëpp solo itam mooy sport bi ñëpp a ngi fi président ASC arbitre yi ñëpp a ngi fi aussi ñu remercions la presse merci beaucoup on se donne rendez-vous aussi demain na ñuy joxe rendez-vous garage u bi monsieur le ministre de ko inauguré incha allah tous les 15 jours nag jeunesse bi dinañ def activité de développement ci dëkk bi. Naw Mbaye Babacar si ki nga xamne mo moom di Moussa Sar Gerle momit jël na fa kàddu moom def na discours bu am solo ñu déglu Moussa Sar ci micro 7. je pense que ni ñun buñu nekké ay ndaw. Nek ci dëkk bi war nañu xol lan mo wara nek boy suñu taxaway parce que boy and ak nit toujours lu may faral di wax da ngay jang ci koku te kiñu andal dafa nek kilifa am taxaway ci dëkk bi di xol lu bax mu xëc ko indi ci dëkk bi japp na que ni la fois passé bi ñu mujjee gisante ak l'entrepreneur mbay fay limu wax moy seen ministre bi daf doon ma wo di ma ba parfois sax duma ko bëgg décrocher pour koku ban ité la accorder li nga xamné moy infrastructure ñun nak ñu ne buñu ñu ay jeune ñu am infrastructure bu melni ci dëkk bi mais jaaduna ñu accompagner ko taxawu ko ba vraiment képp ku fi téw aussi xamni li ñu am dañ ko mérité. moo tax tey ñu commencé journée de reboisement bi ñu def ginnaw ci biñu défé activité fele ci marché ba doon ko nettoyer etc cetera def ko souf etc cetera pour jàppale ko ñinga xamni ñoo nekk ci marché activité bi ñu def nak liñ ci djublu modi fi ak 10 ans fi ak 15 ans comme ni ko waxé ku fi dikkat fekk fi ay garab ñu mën li kat ndaw yi doon àndal ak ministre maire Gallo Ba ci année tel ñom ñok ko fi planté won donc ñu ci wo ñep ñu xam ne stade bi manam muccuk stade bi mi ngi suñu loxo kenn ku ci nek toujours lu may faral di wax war ngay poser une question si tout le monde avait fait comme moi. manam kenn ku ci nek bu dee réaction bobu nga am do def luy yàq do def luy saltel do def lu parce que fii lu fi nekk bu dee lu baax ñun la baaxal bu dee lu bon aussi je pense que ñun lay yakal

mais li fi joto a génn ci ay projet ak ay réalisation yu nga xamné tek nako fi na que la jot ci dëkk mhm. mais bu ko ñëpp bu ko il va damer le pion à tous ses prédécesseurs donc nako ginnaw stade bi dem nañ ca garage bu bes bi ndaw ñi timit fofu ban fa yeggé nak jëmbeut nañ fa ay garap am nañ fa taxaway bu rafet lol ginnaw loolu timit ndaw ñi nga xamne ñom ñoy andar ministre bu fonction publique maire mbacké dem nañ ci maire bu mbacké bol fofu timit ban fa démé décorer nañ ko ginnaw loolu timit, demon nañ ci police ba nga xamanteni bi moy nek ci diwanu mbacke bol police ba timit ban fa yeggee ñom ndaw ñooñ di and ak ministre bu fonction publique maire polis di Galo Ba décoré nañ police ba tek fa ay pot de fleur mu nekkoon Youssou Niang ci estate municipal bu mbacke bol ngir sen set